ñu fekk ko fii nag mu nekk ci taxawaay bu amam solo ñu bëggoon koo tàllal suñu micro moo am ay kàddu yoo xam ne rek dina ko sànni mbokk yi nga xam ne euh, ñooy teewlu sëñ maam Thierno euh, ñu ngi lay siyaare bu baax. asalaamu minallaahi aleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum daara maam Thierno Ndiaye maraaxit mu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare waa télévision bi. tey ñaan tamit sëriñ bi yëkkati leen ba ca kaw ba seen dara te laal suuf barkeb jaalibatu maraaxib waa wàllum xasida yi mooy sunu yëngu mooy suñu dal ànd ko sunu jëwriñ Cheikh Amsatou Mbacke bu yàlla na fi yàgg lool te wér ak jëwriñ Cheikh Mamadou Mountakha euh, xasida yi dafa nekk loo xamante ne sëñ bi jamono yii ñu toll entreprise yëpp ak société yëpp bu ci nekk am na problème waaye entreprise borom Touba ak société bii di ahlu xasida ñooñu moom ñooy ñi nga xam ne ñoo ne ca kaw te duñ wàcc ba illaa yow mi diin képp koo xamante ne bëgg nga jariñu nag Euh, xasida borom Touba yii li mu laaj mooy sell ak sellal ndax borom Touba waxoon na ne jamono ngi ñëw nit ki mën na koo bari leen lool waaye ay moyen mooy tax mu am ko waaye kenn nag mën na cee am benn man koo jariñoo waaye day fekk mu teg ko ci kaw sell ak sellal jëwriñ yii nga fekk ñu toog ñëpp waa ahlu jaalibatu maraaxib lañ liñ ci am sell ak sellal képp moo leen ko may waaw koo ci dem fa mu bàyyi fa mu dëkk rek mhm. dana xam ne kii borom tubaay kese lay dund te adduna leneen lu fi waay dund lu dul borom tubaay kese bis dina ñëw nga xam ne borom tubaay kese dong ngay am doole kon xasida yi mhm. nan ko jàpp bu baax a baax a baax te xam ne mooy suñ njariñul tey di suñ njariñul adduna ak lool alaxira yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dox ci lu mel nii muy seen bii nag mhm. sunu borom mi nga xam ne lu féete kaw moo ko féetale kaw yal na féetale kaw seen seen bi ci barke sunu bisu xasida bi jaalibatu maraax wasalaamu min allahi aleykum wa rahmatullah a jërëjëf sëñ maam Thierno Maraxib ñaani am na solo lool sëñ Talla kon xam naa ñu daal di jàll. waa sëñ Talla salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu maa ngi janoo ak euh, kenn ci mbokk taalibe yi di sunu jawriñ sëñ Saliou Mbaye euh, di yëngu ci xasida yi waaw ci wàllum wecc gi ak wàllum taxaw gi ndax li may wax rek mboolem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci euh, wecc xasida ñaareel ñoom ahlu xasida lañ ci xasida yi la ñuy yëngu Euh, sëñ Saliou Mbaye euh, tey di bisub euh, Jaalibatul Maraaxib di bis bi nga xam ne ci la ñu màggal xasida yi ñu fekk la fii nga defee ab exposition ci wàllu xasida ak mboolem laxasaay yi nga xam ne dafay jëm ci yoonu murit loolu ana ban taxaw seetlu ngeen ci am ndaka liggéey bi baa mu ngi avancé baax bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di sant bu baax Serigne Touba di sant bu baax ci Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw comme ni nga ko ni nga ko waxee rek maanaam jëmmi xas yi moom suñu borom moo ci cër tërale doomu aadama te moo ci moo moo ci natt bi doomu aadama ndax ku tedd ki moom daa mel ne li mu ci wax lu leer la waaw ndax ndax leer wax na ne sama xas dey maa leen bind waaye maay tànn ñi nga xamante ni ñoo ñoo leen di jàng xam maa jàpp ne loolu moom képp ku nu gis mu yëngu ci ci xasida yi rek moom jot na ne kon tànneefu tànneefu sëñ bi la xasida yi moom comme li ñu ci wax rek maanaam wutum xaalis li ci ëpp ñi ci boole ba ñi ci dugal bëriwul li ci ëpp ak bëgg moo leen ciy dugal li ci ëpp bëgg moo leen ciy dugal waaye du wutum xaalis mhm. kon boog day mel ne kon loolu yi nga ci wax rek daanaka moo ci am ndax am na ku teel kilifa gu tedd mhm. goo xamante ne day faral di wax ne xasida yi mhm. maanaam ndimbal dëgg ngay am doo ca mën a jëf ndax man ngaa gis doomu aadama mu tabax këram tabax ko mu doon troisième étage ba tabaxal ab oto fu muy dugg te du am kàggu xasida kon day mel ne kon xasida yi taw féex borom Touba rek maanaam mooy waral yow maanaam nga nga nga cay nga cay nam nabi waaw ndax ndax waaw ba tey boo gisee site yii du site yëpp a fi ñëw waaw du ñëpp fi ñëw am taw féex daal dëgg dëgg dëgg dëgg daal mooy waral maanaam nga ca moo ngoog kon kon taw féex rek daa daanaka maanaam loolu rek mooy waral maanaam nga nga liggéey ci maa war a tamit nga nga jëf ca waaw bis bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy uh-huh. maanaam am na ay milliards ak ñu ñoo xamante ni uh-huh. wallaahi maanaam buñ ci bëggoon jëf ci du ci mën a jëf sëriñ bi rek daal mooy la dafa taw fiya nga mën caa nga mën caa nga mën caa nga mën caa jëf ah, tey boo gisee ni mel xamal lépp lu lu yàllaa la lu yàllaa la mm-hmm. jigéen ñi féete ne góor yàlla yi féete ne ñëpp amul seize ñëpp ay toog suuf mm-hmm. banque seen tànk borom tànk mi ñëpp maanaam yëndoo durs ba ngoon kon tamit nag loolu moom liggéey bu yàllaa la di ñaan la suñu am soto mi nga xamante ni mooy mooy mooy di xam ne mooy léppam mhm. xam na alxasida yaakaar naa kenn ku ne mhm. maanaam am nga cofeel ci moom mhm. ak ndax wax dëgg yàlla alxasida nun mel rek seen imsatoo mbokk maam taalibee ñu nun mel seen imsatoo kon ñaanal ko mu yàgg fi lool di wér te wér moo sëriñ ñoom sëriñ Mbàkke ñoom ñëpp rek ñi xam ne ñi ngi taxaw ndaw yi si xasida yi sa kàddu yi a ñàkk sa wax ji yëpp bokk na li ma gën a yéem mooy wax jooju nga wax ne mm. nit mën naa tabax kër mm.